ay wàllu sangat yi ak wàllu ubbeeku wàllu ndomb bi ak wàllu jaaro bi ak li nga xam ne mooy wàllu traitement hémorroïde ak li nga xam ne mooy traitement ndox siti ak li nga xam ne mooy traitement impuissance sexuelle ak lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu ñaan ak li nga xam ne mooy wàllu traitement diabète euh, incha allah képp koo xam ne soxla nga ñu rek boo ñu ooyee nañ la dimbale ba nga yegg ci fi ñu nekk